salaamaaleykum salaamaaleykum waa Sénégal rawatina ñi nga xamante ne ñoo safo bëgg li nga xamante ne moom mooy Proxi TV télé bi la jege di wan sa bopp rawatina émission bu mag bi nga xamante ne macha allah moom la ñëpp di suivre. émission baa ngi tudd baatu askan wi nee naa la baatu askan wi dañuy dem sol sunu daal mag sama kérémaan Cheikh Assome dugg ci biir askan wi waxtaan ak ñoom saafonte ak ñoom masawu leen coono bu baax a baax ci jafe-jafe yi nga xamante ne moom la am. tey nag sama numéro bi dama koy jagleel inondation bi maanaam mbënd mi tey dinaa dugg Kër Massar quartier bu ñuy wax Sotrac fii di suñu ay dëkkandoo Castor Sotrac daañu fa dugg waxtaan ak askan wi xool seen ay jafe-jafe kër yi lu tax muy inondé kañ la taw bi di tàmbali di leen sonal ñaata at ñu ngi dëkk ci bi ndax am nañ ñu leen jàppale ndax amuñu ñu leen jàppale ay ca léegi-léegi dinaa dugg ci askanu Cheikh bu ko defee ngeen dal jàmm rek yéen ñi nga xamante ne yéen ñee ñuy suivre bàyyi ñu xel bëgguñu lool lool lool bu ko defee Cheikh wala damay daal dox léegi-léegi ma dugg fi nga xamante ne moom mooy Sotrac ay ca Cheikh léegi-léegi ñu dem ci quartier bi nga xamante moom mooy Sotrac ànd ak émission bi nga xamante ne moom mooy baatu askan wi ay ca ak Mamadou ay boy wa Proxy TV ñoo la sersi ci émission bi nga xamantene mooy baatu askan wi baatu askan nak di émission la bo xamantene Proxy moko jaglél ko askanu Sénégal euh, lépp luy jafe-jafe ci walum aduna rek dañ lay daal di sersi waxtaan ak yow bu ko défé ñepp xam seen ay jafe-jafe ñi ngi lay nuyu bu baax baax di daal ci Proxy TV. maa leen di fay. Mhm. te di leen jaajëfal yéen ñu jog ba dérangement ñu fekk ci ma. li nak moom jafe-jafe tusul daaw ñaata at la. Mhm. ñu dañuy ne ci ndox mi rek. di tànga ka tuur ak lu nu dugg ci rek suñ dëkkandoo yi nag jàppale nu lool seetaanuñ ñu toujours ñu ngi ñëw dina xool ba xam ci lan lan nekk dina ñu di leen jaajëfa rek te yéen ñi ñu seet si tam ñu di leen jaajëfa rek te ngeen jàppale ñu rek li bëggoon a xam maanaam ndox euh, kër gi ban at la commencé di taa taal 2011 2011 waaw 2011 mm-hmm. ba léegi maanaam fii mu ngi taa xanaa seen kilifa yi euh, dëkk bi ñoom xanaa yëguñu ne ñoom fii mu ngi taa ah at mu jot ñu ñëw wax rek dem seen yoon hmm. wax daal dinañ ko def bu ñëwee laaja laaj wax a wax a wax waaye duñ leen gisaat duñ leen déggaat hmm. jàppale ñu ci dara nag comme ñun bokk ci dëkk bi hmm. ñu ñooy def suñuy suñuy pomp di wut suñuy raakool suñuy xale dina jàppale ñuy defar ba ba ndox mi demaat ñoom daal comme ñun daal bokk nu ci dëkk bi daal moom gisuñu leen jóg ngeen seen daal yuuxu ko fu ne ci askan wi pour xam ne maanaam da ngeen a nekk ci ay jafe-jafe te waaye daal jàppale wuñ ñu daal moom gisuñu leen dégguñu leen daal moom gisuñu leen dégguñu leen. kon daal mën a déggee mooy benn kilifa. Ah. waaw ñëw seet si leen. déedéet kenn taxu ñun kenn jóge ñëw seet si ñu ne benn kilifa déggu fi tànkam xool ñu kenn seet si ñu gis na itam kër gi maanaam sa sa ñi nga dëkkal ci kër gi yëpp maanaam ñoom ñëpp daanaka dañuy tuxu at mu jot dem di luyee ji. waaw dem di luyee ji kay. Hmm. ak dem di wuti feneen fu ñu aw rek ba ndox mi dem rek ñu ñëw ngacc rek dellusiwaat lépp ñun ñoo ko defal suñu bopp rek. yow la ngay sàkku ci askan wi. ah xanaa ñu jàppale nu rek. Hmm. jéem noo dimbali rek nag te yàlla tax dal daal noonu la ñuy ci askan bi ba ndox mi joggu ci suñu kër gi ñu nekk def ne suñu naw lay dëkk def lool la ñuy ñaan buñ ñu dimbalee daal baax ndax ñun suñu loxo moom joggu ci tu suñu ñoo kii di def lañu man di ngacc ak a tuur ak a defar ba suñu kër wat place bi ndax mësuñu noo jàppale nak kenn mësu fi ñew jàppale ñu ci dara dara jàppale ñu yalla fi wàcce ndox mi

Mana dan semua Aduna Dimbalan tidak sabar are sekolah pelajar nyaka Jogja banyak dëkk bi bu bàyyi dundee li baadoo lay ñàkk bi dëgg bayi prata prata ngir yërmande ndimbal la nuy bàkk ay ca Cheikh ba tey ñi ngi fi nga xamante ne moom mooy quartier Sotrac ah ba tey ci li nga xamante ne moom mooy ndox mi émission baatu askan bi tey ñu ñëw ci kër goo xamante ne ni ma leen fekkee jaaxle nañ sonn nañ macha allah soxna si maa ngi maa ngi lay fay. di la wax ne xamante ne mooy baatu askan wi fii ci Proxi TV. waaw maa ngi gis nga ndox mi de ngi nii ñu ngi nii sonn bay bëgg a dee. Mhm. gis ngeen sama bët bi suñu waa kër ñëpp appalo mhm. suñ duus baa ngi ne kenn mënut a dem duus sooy dem duus dangay ngay sonn bay bëgg a dee bañ gëjee taal añ yàgg na kenn mënut a taal añ amul fu ñu teg ba taal suñ lal yaag suñ néeg yaa ngi ne lépp fàq mu ngi nii sonn nañ bay bëgg dee ndox mi salte na lu nee nekk si biir di dox ku ñu si jàppale daal ñu jël sonn nañ ba si kanamu yàlla waa koj bi ñëpp fii yëpp am ndox ñu xaaj bi yëpp génn nañ ñi am mayoon yëpp génn nañ dem luyee ji waaye xam nga mënoo nekk ak ñu bëri bëgg dem luyee loolu dafay métti si kaw sax lañ ñu aal nii ñaari néeg ak saal ñu man fa dem loger hmm. ñun ci souf lañ dëkkoon mi ngi ni hmm. suñ wañ baag yépp ngi ni hmm. ñu gis na kër gi kañ la commencé di inondé kër gi kay ren la commencé inondé inondé bi daaw inondé won na won waye waaye wul won tout rek waye ren moom mi ngi ni daf ñoo ëpp loxo sën ni nekk fi def nañ lu ne mais mënu ñu ci dara pompe yaa ngi nii jënd nañ pompe pompe ba sonn mais ndox mi nanguwul dem mi ngi non daal kuñ ci jappalé daal ñu jël eh, man maa fi dëkk def na fi 5 ans juróomi at mais ren ji la ma ndox mi gëna a song comme ni mais amna na ñoo xamante ñu ngi dëkk si kon bi yag na fi loolu fi la won fekk mais maire bu dëkk fi ci ànd mais kërëm bâtiment bi ndox bi da ko wax si si jaar nañ mi ngi ci erreur la nekk amoon ku ko dëbbali bâtiment bi dafa fëq ci kaw te mo nga fa mo njabootam borom kërëm laq na bu yag mu sonn bay bëgg dé mais kenn dimbaliwu ko est-ce que yaa ngi dégg gisuñu kenn du monsieur le maire du kenn man sama wax du neex dañ ko wax ci dëgg bi ci dëgg bi mu leer nañ ñu ne ci kaw ñu ne ci kaw dañu dañoo dimbaliwul ñu ne ci suuf

nangu suñuy gox ñu daal di tumuraanke ndoxu foos bi gis nga ni mu def cour bi ndoxu foos bi gis nga li ngay gis ñëpp ay ndoxu foos la mu ngi nii lépp foos la waaw gis armoire bi soo taw bi jàpp na mu ngi fanaan lii man maa ko nii. fii la fanaan mooy nii fii laay jël xale yëpp ñu dugg ci biir mu muur bagage bu yàlla ji di taw ñu dugg ci biir daal di muur tëdd moo ngi man maa ngi ci kër yi def tis ci xool yi bur yàllaay nattu jaam yàlla fi wàcc ndox mu yërmande nangu suñu gox ñu daal di Aşkın bu sen sallayırım hamle Bu sebebe kaydine Loyna tange Bu eso Nudu blue Ci asimismo Ya tumbe diye Taw bi sebet mu rongoñ ini ñàq yóbbaale bakkan badi di ndox mi pompe bakkañ jot na léegi xol fu soori génn leen mi bënn mi nok mi nangu suñu gox ñu dëkk tumuranke askan bi sonn lool soxla yar la waaw batay cheikh suma cameraman ah batay gis nga ñu ngi cité sotrak track batay ci ndox mi ak émission bi nga xamantene mom moy baatu askan wi ñu fekkati ko xamantene mom itam gis nga ko cheikh ni mu démé kërëm ñu ko fekk ndox mi wër ko ak mécanicien moto yi nga xamantene ñom lañu fekk fi ñu wara a liggéey aussi ñu liggéey ndax ndox mi te itam ndox mi dafa mel ni dafa dafa sonal ñëpp rawatina fi nga xamante ne moom mooy Kër Massar quartier Castor Sotrac grand maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar. waaw maa ngi lay sant bu baax a baax. yaa ngi ci Proxi TV tur beeg sant bi. man maa ngi tudd Yaya Cissé. Yaya Cissé dëkk Sotrac. Hmm. waaw dëkk fii yàgg naa fi hmm. ça fait presque douze ans maa ngi. douze ans yaa ngi fi hmm. ñu gis jafe-jafe yi ngeen dund mooy inondation bi ndox mi depuis kañ la fi commencé di taa. bon fii moom de man bu ma fi ñëwoo. en 2009 laa fi ñëw. 2009 mais année boobu peut-être fii melul nii quoi. mais depuis 2012 ñi si inondation bi. depuis 2012 ñi si jafe-jafe bi. Mhm. voilà ñi ndox bi. Mhm. ñi la meloon daaw tamit. Mhm. nekkoon na fi beneen taw bi fekkaat encore. lu metti na ay yooyu ay feebar lu nekk mun nga mun nañ ko am fii. Eh, y a des maladies plus graves que corona nga ko am fii si ndox bi ko donc ñun vraiment sonn nañ. depuis 12 mois sur 12 mois ñu ngi si ndox yi ñu ngi si ndox bi mi ne amul benn solution ñu gis fii ba léegi amul pompe amul dara voilà gis na dëkkuwaay bi métti na lii école la est-ce que élèves yi jàng si fii aussi ak euh, feebar bi ndox mi

peut-être ay politiciens nekk maire ñoom ñoo ñëw fii. Mhm. ñoom tamit solution ñu am xanaa jënd groupe a xëy ci ndox mi mais fii situation bi métti dafa métti situation vraiment ni dafa métti parce que boo xoolee eh, kër nekk fii yëpp parce que am na yeneen kër yi sax nañ ba parce que ñun ñoo nekk fii ta bon sant yàlla comme ñii fii. mais mhm. on est mhm. kenn xamul kan ëllëg. lan moo war a xew ñu gis ne Kër Massar Sotrac ñëpp dañ ne ñoom état daf leen a ginnaaw rawatina commune bi waaw yow lan ngay wax ci loolu lan moo tax euh, homme politique yi nekk Kër Massar du ñëw Sotrac wala soit ñu ma gis fii Kër Sotrac waa Sotrac jubóo ñu jubóo ñu et puis c'est l'union war a dajaloo hmm. booloo nekk benn nekk benn hmm. ndox bi hmm. du politique kese gis nga jeunes yi surtout jeunes yi dañu ñoo war a ñu ñoo war a booloo nekk benn parce que jeunes yi ñoo war a defar seen ko mais je yi ku si ku ne nga tasaaroog politique ñëw rek nga ne bëgg rek wala c'est pas un jeu politique. ñun mm-hmm. nii nekk fi fii vraiment buñu ñu fi état du état mo ñu wara ñew en premier lieu jeunes yi ñoo war a jóg. Mm-hmm. fi état fekk ñu si ñun tamit dañuy wara def bruit pour état dégguñu. déglu est-ce que vous avez compris. Mm-hmm. non loolu mooy suñu suñu jafé jafe yow pour yow solution bi amna ñu tàllal suñu micro Sotrac nee nañu dañ leen wara a toxal. Changer leen ci de aussi pour solution donc solution bi bassin. bassin mhm. de rétention, mhm. mhm. parce que beaucoup les un espace yi vous avez un bassin de rétention. bassin boobu su fait am kër tout déménager là-bas, il na parce que bassin qu'est-ce a. mu ñu war a jàppale wala ni raccorder village.

comprendre nga mhm. su fekkee benn bassin du doy ñu créer benn bassin côté bi parce que am na espace nag nekk côté tool bi mhm. mën nañ créer benn bassin du ñu laal que benn kër mhm. loolu yëpp mën na nekk loolu la solution solution mooy canalisation ñu canaliser fii mooy mooy solution solution définitive bi quoi mais ay jël kii bi ay ay groupe wala ay raccord loolu mënu c'est pas une solution parce que sinon on va dañu nañu dundaat encore même même situation euh, l'année prochaine Roufle Jean prend une pelle on va sarcler solidarité so inama noddi ko gueɗe nayyi yii koyimi kotin kotinmi ko nan ko nanmi ko ndaye ko dañmi ko kono noon motan en janggo yermande mbolo moy doole askan wi sohla nan mbolo moy doole askan fauden jegam ndaw ku wéeree ndaw ku jagaade waaw ba tey ngi fi nga xamante ne moom mooy Massar quartier Sotrac Castor ci émission bi nga baatu askan wi tey ñu ñëw ci mbënd mi ci inondation bi depuis sànq ba léegi ñu ngi wër man ak sama caméraman Cheikh ay ñu fekk fi ñi nga xamante ne benn organisation la tuddee seen bopp ànd xeex mbënd mi maa ngi leen di nuyu baax salaamaaleykum wa ànd xeex mbënd mi waaleykum salaam wa rahmatulahi taala nii ñoo ñoo nekk Castors Sotrac ci mhm. nekk ci commune nord bi mhm. ñu koy wax Castors Sotrac di wax nag ne vraiment ñun moom gars yi dañu dañu ignoré quoi mhm. dañu ignoré parce que euh, li tax mooy euh, avant avant muy taw y avait benn kii ñu fi ñëwoon quoi ñu woo ma ba ma ñëw ñu ne ma léegi ñu bëggoon dañu bëggoon ngeen re ngeen woote réunion la 15. ñu ñu waxtaan ci affaire mbënd mi. léegi bi ñu mu waxee la 15 ma toog la 14 ñoom ñu ñëw à heure ñu ànd ak seen i oto. ak waa Sénélec. ñëw ne fii mooy fan ma ne ko Castor Sotrac mu génn cahier bi daal di ubbi cahier bi xool. ne vous avez une dotation de deux machines. deux grandes machines léegi yéen. seet leen fan choix fan ngeen ko bëgg a def ñu defal leen ko ñu daal di tànn poto ba ngay seen boobu yawee yawee la Sénélec mhm. ñu ngi ñu ñu ñu waa Sénélec ñoo leen di bi mhm. ñu wàccee ba pare ñu tànn poto bële tànnaat beneen poto fële muy ñaari poto léegi ñu dem dem dem ba quelques jours rek ñu xëy ba tabaski desee dix jours mhm. ñu indi conteneur ba la ngay seen teg ko fa bañ ko fa tegee ba léegi nag on a fait tout. Mhm. woote nañ gauche woote droite heure boo leen wooyee ngi ñëw tey duñ ñëw. tey mais mu ngi lii. nii c' à cause du du ministre du ministre du commerce quoi. Mhm. Mhm. moom moom lañ defoon gars yi xale yi defoon délégation. dem xool ko. mu indi leen machine bi machine bi démb la ah, moo ah. nekk leer daw démb démb la commencé tàkk ak tey nii. on a on machine boo xam ne ñu ngi ñu ko abalee fële Camille Bass benn délégué de quartier. moo ñu ko abal. ñu ñoo ànd nii keroog dem. biñ demee. ñu ànd jël foofu saret indi ko biñ ko indee nag la machine est là am na doole moom mais nag fuñ koy déverser lañ amul amul fu mu versé amul fu mu versé deux heures ah. temps yi mu tàkk ñu ne ñu arrêté leen hmm. ndax fee fees na kan moo leen arrêté leen euh, gars yi parce fële mooy fees quoi fële bu feesee day déborde dugg ci kër yi ñun xam nañ parce que dem nañ fa xool hmm. xam ne effectivement li ñu wax li dëgg la day dugg ci kër yi ñu arrêté ba mu ba ñu fi wàññeekuwaat ñu loolu nag moo tax sax ñu xaw a am fii tuuti mais tout ce monde là ñëpp dem nañ. mais lu tax quartier Sotrac dëkk yu bëri ci Kër Massar wala ay quartier am assainissement. Mhm. am ay canal am tali karo yéen lu tax bokkoo leen ci projet waaw foofu moom mën naa wax ne peut-être deux parties la. Mhm. benn bi mooy ñun ñoo ñoo ñoo liggéey lu ñu war a liggéey. Mhm. parce que fii. Euh, fii yaa yaa yaa mhm. yaa des apéristes mhm. yaa am na benn Bokk Yaakaar mhm. mais liggéey bi moo des liggéey bi moo des surtout nag la jeunesse encore ñëfewuñ seen part bu ñu war a ñëfe ba am seen part parce que affaire bi euh, beñal la rek dañ ko war a xaajoo boo demul nag duñ la xaajal ñun nag loolu moo ñu rey mais am ngeen ay conseil yéen fii au niveau amuñu ci mairie bi on est kaw à la mairie amoo leen benn conseil dara tous on kaw a la mairie yàlla may ñu yërmande buur bi may ñu yërmande yërëm yaay oh, ay ca Cheikh ba tey sama caméraman maa ngi fi nga xamante ne ba tey mooy quartier Sotrac ba tey nee naa la tey fii laa xëy du ma fi génn émission Baatu Askan Wi saa su nekk nii lay daal di demee ci émission la boo xamante ne jafe-jafe askan wi la ñuy waxtaanee fii ci Proxi TV lepp lo xam ne moo askan wi rek macha allah numéro bobu di affiché ci bande écran bu ngeen ci wootee danañ ñëw fekk leen fi ngeen nek jël seen ay jafé jafé jàllale ko ci émission bi nga xamante mom moy bande askan wi ngir ñëpp mën ko dégg ba tey ñu ngi fi nga xamante mom moy euh, quartier sotrak fekk ay jeune yo xamante ñi ñu ngi toog macha allah taal seen moto pompe di pompe ndox mi euh, ñu fekk fi kenn aussi euh, jawrin wala boog grand ñi ngi lay nuyu jël ziar. way ma ngi leen sant tour beeg sant bi. Mar la laa dëkk. laa tudd maa ngi Mar Sow. wa ma ngi dëkk ci ci quartier bi. Mhm. depuis 2001. 2001 waaw. kon yow war nga muy mën a wax lu bëri ci quartier bi. Ah, waaw waaw inondation bi kañ la commencé fii ci quartier bi. non inondation bi il y a deux ans avant parce que boo dee xool. avec euh, l' explosion démographique. Hmm. waaw dëkk bi dafa mujjee mujjee kii quoi maanaam tëju. dafa mujjee tëju te amul canalisation amul dara c' est ça. léegi lan moo tax Kër Massar ñu bëri am canalisation am ay pavage ak genre te fii amul canal amul dara. lu waraloon ah. sa sa sa kii Sotrac. bon loolu peut-être euh, bon du ma ci sori. Mhm. parce que bon soo ci waxee gars yi naan da ngay politique ak yooyu. Mhm. xam nga mais daal l'instant diggoon nañ depuis daaw xom. Mhm. ñëwoon nañ euh, dinañ ko kii dinañ ko régler mais depuis boobu ba léegi gisuñu dara. mais gisoo ne lii métti na chaque ngeen def nii toog bàyyi seen ay jàng wala seen liggéey nekk ci inondation. ah ñun ñun nag sincèrement parler ñun xaaruñu kenn nag. sincèrement parler. parce que instant bi ni ñu ngi gis fii nii yëpp kenn bon amul kenn commentaire woo nañ la pour ma ñëw mais xam nga rek euh, dans la vie boo nekk il faut ngay volontaire quoi di di di présent pour parce que ñu ngi naan euh, bu askan nekkee ci situation. Mhm. dama war a jóg roo xaar état quoi. Mhm. ñu xaar kon yéen daal su ma leen déggee mooy xaaru leen ci état. non xaaruñu kenn. lu ngeen di xaar seen commune. waaw ah, ñun instant bii nii kay bu fekkente ni dafa jugee fee ñëw jàppale ñu ñu jël. ñu mhm. ngeen jël waaw ñu jël parce que tamit bon. ndimbal moom ki ku jug ne la da lay jàppale rek bon jàppale mais boo ko jàppale aussi tam bu ko teg ci politique quoi parce que ñun politique taxul ñoo jóg. ku leen jox moto pompe yi essence bi ci dawal yëpp ko euh, mm-hmm. mm-hmm. mais boo dee xool moto pompe bi tey bu amee problème bon. Mm-hmm. mujjee obligé toog di xaar. xaar yàlla quoi la fi commencé def ay inondation comme nii seen quartier daawaati géej defoon na fi inondation bu métti daaw aussi tamit la gënoon pire ren tamit la même chose boo dee xool bon chaque jour dinañ naan dañuy jël ay mesures mais finalement te damay ragal sa déwén tamit ñëwaat tamit gën a pire waaw gën a pire aussi mais Kër Massar nekk département nekk cible lu ñu bari ba ci état bi barki démb ñu lancé waat plan Orsec encore une fois lan ngay xaar ci plan Orsec boobu noonu non plan Orsec bi moom man que mm-hmm. boo dee xool plan ko daaw mm-hmm. fu mujjee defe naa ne dara boo ko lancé avant ngay lancé waat beneen da ngaa nga lancé woon fu mu fu mu toll ba pare avant ngay def dara ban message di ko jàllale ci émission baatu askan wi nga xam ne yéen a ko waaw instant message bi mooy lancé daal mooy que kuy instant bii nii daal ku homme politique moo xam ngay nga nekk ci nguur nga xam nga l'essentiel képp koo xamante am nga doole rek mhm. koo xamante mun nga ñëw jàppale rek bon nga dimbali ñu aussi même bu ñu deful canal sax mais nañu jox ay moto pompe yoo su ma jub 150 aussi tamit surtout tamit ay tuyau surtout mhm, kan ngay wax sa copain toog ak yéen ci metti waaye bon gars yi ñii ay jàmbaar lañ ñi mm-hmm. nga ñee ne <laughs> <laughs> war ñii ay jàmbaar lañ la quoi gars yi duñ nelaw ndeysaan billaay wallaay nelaw fee dañuy toog benn kat mm-hmm. am na ñoo xamante ne laa dañuy dem benn trente secondes trente minutes la ñuy nelaw ñëwaat ñëwaat fii di ah, waaw ñëw gis nga c'est ça quoi c'est la famille quoi. voilà c'est la famille. ayca jaajëf ñu ngi lay déggee déggee merci. ayca ba tey Cheikh sama gis nga ba tey ngi sotaraat. Ah, fekk si fi gars yi nga xamante ne ñoom volontaire u ah sama waa ji tur nan la. Ousseynou Ndiaye. Ousseynou Ndiaye lan mooy seen teewaay fii ci ndox mi. waaw gis nga de ñun de ndox bi ñun ñoo nekk nii mhm. ah, pour assurer évacuation ndox bi. Mhm. ndox bi nekk nii ah, cité Sotrac. Mhm. ñun ñoo nekk pour. waaw ñun ñoo nekk. pour assurer l'évacuation. parce que depuis que fi stagné mhm. euh, malheureusement mhm. mhm. le maire na fait il n'a pas tenu promesse la donc nous ñun nous nous nous ñun obligé pour évacuer ma gis machine bee daw ne ak lii nga xamante ne moom système bi lépp ci wàllum ndox mi la noo mën a expliquer ñaar yi nga xamante ne moom fi nekk mooy machine bi ak moteur bi tege machine bee mhm. euh, ne asom jaata moo ñu ko jox mhm. moo ñu ko joxoon ak benn 100 mètres tuyau mhm. te xam nga benn 100 parce que du dul lu bëri malgré nag il a ak il a ak dimanche waaye loolu doyul on est obligé ñu def suñuy cet ak nangam nangam paye ci koñ bi rek ñeneen seen seen participation ñu jand ay tuyau lu mat six cent mètres. pour mu mën a dem reli di fële kii faas kii faas ba a déverser boobu noonu lay déverser euh, lii nii. dañ ko fi defoon ñoom avant ndox bi di taa. ñoom nee nañu. Adem euh, Adem waaw Adem. waaw Adem ñoo ko fi defoon gouvernement bi exactement mhm. pour ne bu euh, inondation en pour ñu waajal ko quoi bu ñëw. Mhm. léegi ñu def fi machine. Mhm. pour mu mën évacuer ndox. mais gis nga ko ni cadre dara. feeraay la jëm lu fi nekk. yéen def ngeen dem ngeen. on a tout fait ndox mi ngay gis nii nii. Mm-hmm. depuis 2011 ba léegi mu fi. 12 ans ñu koy dund 12 ans 2011 mm-hmm. ba léegi mi ngi koy dund. gis yéen jeune quartier bi ngeen dajaloo bàyyi seen liggéey seen activité yëpp ñu gis leen tamit ngeen dajale seen boolu añukaay

waru nek di xàjj ak seen di am ñu muy defar ak ñu muy baax sotarak gisun sen bopp ci mom lay wante deug ñu am nañ droit far ñu neex nag mhm. am nañ droit du par force lañ ko wara faral du par force lañ ko wara a mhm. nous avons le droit d'avoir notre candidat mhm. nous avons le droit de choisir qui on veut mais nak du tere kay yilif Kër Massar dafa wara bolé boole yilif ñëpp di defal ñëpp maanaam su ma la déggee mooy dafa yemalewul saa yemalewul defaroon ñële defaroon bàyyi yemalewul maire xaaj na xaaj na affaire yi yàgg xaaj na bu yàgg xaaj na bu yàgg depuis fort longtemps xaaj na bu yàgg moom boo waxee minu sud la bokk noonu waaw boo leen waxee nga dafa lënd

toxal loolu yenn beneen wax la parce que mën na la dañ lay toxal tamit c'est dans l'immédiat am na ñoo xamante ne bi bu ñuy répondre ndeysaan émotion bi da leen di jàpp ñu ne nan ñu toxal ñun ñaanuñu ko ñu toxal parce que fii lañ xam fii lañ fii lañ bokk nan ñu wutal fu ndox mi déversé wu ndox dañ koy wutal yoon mu dem mais Kër Massar am nay canalisation am nay tali kablo lu tax bokkoo leen ci yéen Sotrac moo jaaxal xamuñu ko te normalement ñun Kër Massar lañ bokk ñun bokkuñu mbaaw bokkuñu Fass mbaaw bokkuñu ñaari tali Kër Massar ñaari tali ñun Kër Massar lañ bokk Kër Massar gi lañ bok fi lañuy ñuy fi lañuy ñuy fi lañuy fay impôt fi lañuy voter man Kër Massar jéegee laa woote. bureau 22. bureau 22 fi lañuy voter ñu fi lañ dëkk ñun. lan ngay taggo wa baatu askar bi ak projet TV bi nga xamantene moy télé banlieue bi di la dila won sa bop ngeen gis ni depuis lor ñu nak yeen sur le terrain. lan ngay wax wa projet TV. wa yeen mo wa projet TV dañ leen sant di leen gërëm parce que nit bu lay jatt jot cadeau sa cadeau du moins. Mhm. ngay ñaxtu. di wax li la li nga bëgg a wax. Mhm. mu di la ko jot li kooku amoo fayam. surtout mu déplacé wu ñëw. Mhm. xuus ci ndox mi man j'ai été témoin oculaire et ma di yéen ñëpp ma di leen gis ngeen dugg ci ndox mi. di xuus ci biir ndox mi. Mhm. kon donc yéen dañ leen di jaajëfal. di leen wax nag yàlla na yokk. ci kaw ca kanam rek procédure bi ci kaw ca kanam. li ñuy wax askan wi tamit ah, mooy. nañuy xool ñi ñuy jiital. nañuy xool ñi ñuy jiital parce que lii yëpp. yenn njit moko waral njit luy parparloog njit luy dàggasanteeg njit luy wërite la di wax lu am moko ko waral ayca yeen ñi nga xamantene ne yéen baye doon bàyyi xel fi nga xamantene mom moy proxy TV ak émission bi nga xamantene mom moy batu askan wi tay ma ñewon fi nga xamantene mom moy quartier keur Massar Castor Sotrac ah doon waxtaan ak askan wi yaakaar naa ne yéen a ko gisandoo yéen sama mbokk téléspectateur ci télé bi nga xamante ne moom moo la jege jëla woon sa bopp ñu ngi wax la Proxi bi a a a baax ak direction bi nga xamante moom mooy télé bi jox ñu ndigal ñu wàcc sur le terrain ànd ak askan wi seen ay naqar ak seen ay jafe-jafe gis ngeen tey fi ñu génn mooy comme ni ma la ko waxee inondation la ñu wax wala nga ne mbënd mi ndax Kër Massar dañoo sonn lool lool lool lool tey nag émission bi yaakaar naa ne Kër Massar lañ ko commencé yemale ko fi nga xamante ne mooy Kër Massar ndaxte ñi ngi woon quartier bi ne moom mooy Sotrac macha allah Cheikh nga gis ñi nga xamante ne ñoom ñëpp ñoo jël kàddu wax ay naqar ak jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ñuy daal di dund ndaxte mbënd mi la gis nga pompe bee su ma wet yaa ngi dégg riir bi ak li nga xamante ne moom mooy euh, li ñu teg fii nii yëpp lépp di wàllum inondation ñuy wax nag askan wi di leen masaw bu baax a baax a baax baax ci suñu kàddu di leen masaw di wax ne yàlla na ko yàlla tegg ci barke Seydina Mohamed baatu askan wi la ñu wax baatu askan wi la ñu wax baatu askan wi la ñu wax émission la boo xamante ne askan wi rek ñoo ko tax a jóg lépp loo xamante ne seen i jafe-jafe la seen soxla la yaakaar naa ne numéro boobu daw ci bande écran bi boo leen ci wootee daañu ñëw fekk leen fi ngeen nekk ànd ak yéen ci ñaxtu yi ngeen xam ne moo ngeen di ñaxtu ak naqar yi nga xam ne moom ngeen àndal macha allah di ñaan yàlla lépp faju di wax inondation bi ak lépp li nga xamante ne moom mooy jafe-jafe askan wi yàlla na fi lépp jóg di jaajëfal ñëpp di gërëm ñëpp di leen jox rendez-vous incha allah rabbi très prochainement ci seen beneen numéro bi nga xamante ne moom mooy euh, baatu askan wi di jaajëfal suma caméraman nag macha allah di ko wax mention spéciale sonn nga ndax maak yow ci biir ndox mi la ñoo ànd depuis journée bi ma lay masaw coono bu baax a baax a baax a baax Cheikh Assome di la jaajëfal di kontaan ci yow bu baax di jox ñëpp raadu incha allahu rabi gaay yi ay ca beneen émission di demoon nii maa ngi nii di ko si biir ndox mi Cheikh ay ca jërë ngeen jëfal yàlla may ñu yërmande buur bi yàlla nga la may ñu yërmande ya amul cap si ñepp bokku ti si chat gi jël mbolo taf si xol yi jël katan def ci sas gi askan wangi lot rew mi gëna nu rol xot ne tekku kuréel yi taxaw songo war gi dal di xoj mi dafa metti ku ni wul sa kër dafa tawul bila sonni gëm nga yalla de muy deug dalay najoo liko ne ngir setlu sa ngëm